time ceeb bi saf saf euh, gaa ñi Sine Saalum li ngeen fi def dafa neex lool lool lool lool ba tax na rek euh, tey yaakaar naa ne fu séeréer mun a nekk biir Gambie fii dëgg dëgg sa xol tooy na dëgg dëgg ne fi nga mun a nekk rek euh, bég nga cosaan dafa neex. nuyu nañ la ci biir programme yi guddi samedi wax ñu na nga ko tudda asalaamaaleykum mbooloo mi. waaye nag benn tey tiijaan xam naa foog ma wax suma cosaan balaa may dem ci olof bi. waaw nuyoo la ak séeréer yi waaw foog séeréer moo fan ne i kontaan nun trop parce que yaa andoona yee o kiin kiin a xaja soxla um a xaj bas luma ciiñ ta a gara ree fan i da it mene boo waxtu fene kon nun we moof na mene o leng jegee ndabid nun tam no séeréer ref na xayen saate fee rek in fop in we ngid mang to ande cosaan faye i ndef na in i mbugaan a mbug i miña miño ñaaƴaa teen kaaga refee xaye kon koy ndeysan sin salum yo ne suwana jam ne sandef mi somra fo cigen den kam den kon fokum gidma den parce que afel anga den de la a ko du ne ro kamene sutu mene da mbiran munda inorit na dal gada bisa ham ngefiram ngajira hama cin kon koy fokum gidma den kon tijan ndeysan président de la république alaji yahya ejeje jame o leng sadira lay no telele mene to ne ino parce que afiya fi makam sate fe ino serir koy in be contente affaire um trop trop trop ñoxo ñaarem séeréer yi ñëpp ah parce que déguma séeréer nag ah ñoxo ñaarem waaw loolu moom loolu moom dëgg la kontaan nañ ci yow léegi dama bëgg rek nu gën a gaawee nga wax ñu sa tur waaw man Kodou Ndiaye laa tudd Kodou Ndiaye waaw waaye suma tur artiste ba tey siiwul bu baax mais Samba Sarr mais nga xam ne yàgg naa toog ak moom ca rajo City Limit waaw xam na ne yaa ne Kodou Junior lañ may woyee ci suma turu artiste waaye ndeysaan Tijaan dama kontaan trop. buma yalla yobbo bama aksi ma fi mom legui dama bëgg nga defal ma affaire wéyal ma ci séeréer bu tega bu kenn def dara. waaw nga woy ci goudi samedi woy ma ci waay woy na affaire waaw naan. dama la ci woyaale nga de. woy ma. <laughs> yow Tijaan nag gis na ne ko bëgg lu neex nga ya <laughs> woy ma. dama lay woy. ayca ñu ngulak na bees eh, ngulak na bees yaay. siai tijan ka oyam jega moda yale ngulok no bese ngulok no bese tijan ka oyam jega moda yama affaire bi dafa daw yaram dégguma loo wax waaye neex na ci xol boo xamoon nag lay gën a métti waaw léegi tekkil ma ko li ma wéy ci affaire bi mooy waaw sama ceetu doom su ma Dom, mhm. doom tiijaan def ma woo kon sama xol sedd na loolu la affaire bi firi ci olof dama gaaw a jooy waaye tey moom damay damay muñ affaire bi ah? rek ma bës ko ah <laughs> wa waroon naa dégg séeréer ah bilaay waroon naa mun a dégg séeréer di kon ni kon mu neex de ah waaw léegi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf léegi nag dama bëgga nga wax ñu tuuti rek si Sine Saloum waaw ndeysaan Tidiane dinaa wax ci Sine Saalum mais dama am sama xale yoo xam ne démb démb laa leen wax ne ñu ne invité Sine Saalum GRTS ñu ne ma bu nekkee dañuy yelwaani paas sax mhm. kon dinañ la fa fekk muy suma xale yële toog ma kontaan ci ñoom trop te bi ma yegsee tamit xamoon naa ne lu métti métti dinañ ma fekk si Sine Saalum nag dañ yàgg a yëngu mhm. bu njëkk ci ay pot lañ ko njëkkee woon pot waaw ay pot am suñu yaay araa mu ñuy jàppale daal di jël groupe fu ñuy dem mbaa ñu xewle mu ne leen woo leen xale yi parce que xale yi dama bëgguñu ñu siiw muy yaa ara mu nga belamin ñëw moom tamit dafa demoon macaroni yal na ko kaala bi jikki mais Sine Saalum daal yàgg nañoo yëngu te bëgg nañoo dem ca kanama kanama kanama kanam bëgg nañ daal ba romb fu artiste mun a egg rek ñun bëgg nañu faa àgg parce que li ñuy def dañ ko gëm ba pare dafa sax ci suñu xol yi daal xëj na bu mën naree wax lu bari ci affaire boobu suma xol day fees Tidiane parce que fi ñu fi ñu jaar dafa métti fi ñu jaar bi yegg si fii dafa métti wóor na suma xale yi xaw ma suma càmmiñ yi ma àndal ñoom xam nañ loolu yëpp amuñ coono bu ñu dajul daal waaye gannaaw yàlla ak yonent bi nga xam ne moomu lépp moom lépp comme mu ngi ñuy jàppale bu ñu yegg si fii ñu ngee ñaan yàlla rek ñu am ñun ñëpp fan bu gudd ak wér parce que olof Njaay dafa ne bu yoon jeexul waaxu sil du jeex kon ci noonu la ñuy yëngoo ci affaire bi Tidiane lu ci kanam rawut bot siñ Saalum bi mooy ah, njëlbeeni yoon ngeen ñëw ah, programme bi guddi samedi xam nga buñ doon ubbi programme bi wax naa ko nee naa leen ne GRTS moom mooy télé bi nga xam ne dafa boole askan bi yëpp te mbir bu ko ay nit ah, seexee dangeen ko war a sàmm moo tax tey ñu am mbégteel war a dalal ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki séeréer yi parce que Gambia ñu ñëpp benn lañ Pël beeg Joolaak beeg Euh, ma jaago beeg ñëpp ñëpp ñëpp dañ ci am cër moo tax nag ñuy eh, def suñ kémtulaay kàttan ci programme bi mun a indi xet bu nekk ku nekk mun na ñëw bégal say askan parce que nit amuloo lu dul say mbokk parce que tey comme ni ma ko waxee fu séeréer mun a eewoo ci suufi Gambia fu séeréer mun a eewoo biir Sénégal tey nga gis waa Sine Saalum li ñu indi fii ci programme yi guddi samedi dafa neex ci xol parce que nit amuloo lu dul sa cosaan doguma la waaye yow ci sa bopp tamit artistes yi dañ la war a gërëm te dañu war a booloo ñun ñëpp artistes yi daal di la beral wëy parce que xeeboo benn artiste man gis naa loolu dama dee seetaan guddi samedi du bés bu ne nag mais léegoo léeg ma faral koo seetaan mais yow tamit artistes yi yëpp man bëgg naa artiste boo xam ne rek mu ngi may déglu rek bëgg naa ñun ñëpp ñu booloo muy joolaa soosee karoninka baax ñëpp ak séeréer yi ñu booloo di defal tiijaan wëy bu riis parce que tiijaan dëgg dëgg neex yàlla bu la neexoon ne ah ñi kër mësu ñu génn dugg na fi génn na fi mais loolu yëpp defuloo ko daal di nga ñu invité doyloo ñu te gis naa ne niñ fi fekkee mbooloo bi tamit ak ñi nga bokkal di liggéey fii ci télé bi gis naa ne ñu yëg nit lañ te ñu baax lañ kon maa ngi fiy ñaan jàmm yàlla na fi yàlla saxal jàmm mu law bi faw waaye affaire bi nag du ci man affaire bi du man affaire bi ci ñu gën ñu nekk ci ginnaaw la. waaw kon kon ñu ci ginnaaw xam nga damay tàmm wax rek ne man affaire bi chance la nekkul ne la may la.